di liggéey ñoom ak ci bas liggéey ñëpp. ñu ñu bëgg a xam euh, wàllum sport man ah. nga ci yëngu. Ah. ñoo ngi nuyu bu baax waa Tawfekh ñoo leen nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm di wax ne seen liggéey am na solo macha allah ñoo ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di wax ne ñu ngi ziare képp koo xam ne mu ngi si Sénégal rawatina kilifa diine yi. kilifa aada yëpp ñoo ngi leen di siyaar bu baax di ñaanal si njiitu réew mi yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla defal ko tawféex defal tawféex bépp jaam yàlla bu nekk ci àdduna bi waaw mu mel ni laaj bi nga laaj mooy wàllu sport waaw wàllu sport moom loolu dipp ba yi nekk ca daara ja nekk ay xale lañ si daan yëngatu maanaam si wàllu xon boobu wàllu xon ngay gis xale bu ndaw boo xamee bu xooyee équipe équipe boobu yaakaar naa du man dara ñun booba lañ si commencé si yëngatu ba bés ni ki tey léegi nag yàlla def na fii si Dakar dañ si yëngatu si wàllu ñaan si sport lu bëree bëri bëri sax ndax de képp ko may seetaan wala nga gis vidéo bi di nga xam nañu ñu lay wax ne am na te jëflante nañ si ñu bëri daal ñoo xam ne ñoom xam nañu ñun xam nañ leen ndax dañuy ñaan si wàllu football aussi dañuy ñaan si wàllu làmb dañuy ñaan si wàllu basket ak lépp loo xam ne wàllu sport la tàggat yaram rek dañ siy ñaan te ñu ngi jëflanteel xam nañ bu baax te dañ siy am résultat yu bëree bëri bëri wala ñu demoon ba fa ñu liggéeyee danaa la woon ay coupe yu bari yoo xam ne yii maa ko jël ay yeneen trophée yoo xam ne ay ay drapeau la ay làmb la ñoo ma ko indil yëpp rek si wàllu tàggat yaram la te ñu ñu def ko si ak fierté ndax ñun dañoo bëgg sport moo tax waaw loolu moo tax waaw. mooy nag ñu waaw alhamdulilah su fekkee jigéen la boo xam ne dafa të am jëkkër moom su ñëwee am na sangar bu ñu koy jox mu sangoo ko juróom benn fan moom la koy sangoo suba ak ngoon boole kook leket leket ak li nga xam ne mooy inde su ko defee juróom ñaari fan dina sëy de bu ma teeree dina dégg ku ne ko kaay ma takk la. xanaa kay moom mu bañ a sëy su fekkee ne jigéen gi nga xam ne dafa war a dafa toll ci sëy rafet lool taaru lool waaye ku ñëw wax rek dem su boobaa loolu am na loo xam ne moom lañ koy jox mu takk ko si ndiggam su ko tegee si ndiggam rek loolu balaa tilim incha allah dina am jëkkër su fekkee ne dafa am rab maanaam rab boo xam ne tey kum nekkal rek dana xuloog moom wala mu yàqu moom te du xam lan moo ko waral loolu it bu ñëwee nañ ko si liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu yéeme la boobu dana ko bàyyi. te lépp loo xam ne moo ko doon gàllankoor si diggante ma góor ñi dañ ko bàyyi am nañ si daal sangat yu doy waar su jigéen goo xam ne dafa bëgg jëkkër na ko doon góor goo xam ne dafa bëgg jabar ndax léeg nga gis góor ñi koo xam ne jabar da lay të fu ne ngay dugg pour ut eh, ut jabar ut jëkk ut jabar waaye foo dem rek ñu dàq la wala foo dem ñu xeeb la ne yoroo dara su boobaa loolu mën nañ de si ñaanal ba jigéen ñoo lay wut si yaay xool ku la neex nga takk ko alhamdulilah loolu yu yéeme moo xam jigéen mag la moo xam jigéen la am na sangat boo xam ne boo ko laalee soo de soo nekkoon jigéen ju am cinquante ans it ñu góor dana góor dana la topp dana ñëw ne dama laa bëgg a takk na ko nag fekkee góor nga boo nekkoon ab paa it xale yi da xool ki si nga takku na ñëpp lay bëgg nga sëy ak ñoom loolu dafa am sangat yi wér la lu leer naññ la waaw wàllu wàllum doom wàllu am doom jëflante nañ ci ay jaam yàlla yoo xam ne bañ jëflante ñoom am nañ ci doom gis naa si ñoo xam ne sax tuddee nañ ñu si doom ñun ñi ñu am si ay turandoo li may wax ni am na ñoo xam ne mën nañ koo seede loolu lañ koy defaree su jigéen gi dafa të am doom dañ koy jox ginaar boo xam ne ginaar bu jigéen la ak ginaar bu ak ginaar bu góor léegi ginaar bu góor bi maanaam ku jigéen ku góor ki moom moom lañ koy defar saafara moom mu lekk ko moom kese ñaar bu jigéen bi ñu defal ko ki nga mooy ko jigéen gi moom mu lekk moom kese bu paree am na lu ñu koy weddoo ñaana ko dégg nga su ko defee bu régalam ñëwee bu arrêté am na benn saafara bu ñu koy jox saafara boo ko jëfandikoo alhamdulilah dana am doom dana ëmb de waaw xawma ma ay seex lay doon waaye dana ëmb incha allah loolu jëflante nañ ci ñu bëree bëri bëri loolu nga léegi-léegi nag dana am jigéen yoo xam ne danañ ëmb waaye duñ mën a téye ëmb léegi loolu ngelaw da koy waral yenn saa yi ngelaw day waral loolu maam fi ëmb war a tege yaa ngi dégg ngelaw bu fa nekkee doom dafa mën a sosoo léeg nga gis koo xam ne maanaam bu ëmbee rek wala bu sëyee rek man nii bi nga xam ne moo war a dem placer pour nekk nekk doom man nii boobu day tuuru loolu ba tey rab da koy def eh, su boobaay loolu mën nañ koo faj am na nuñ koy fajee mu dañ léeg nga gis koo xam ne day day ëmb it ba am doom waaye bu amee doom doom yi duñ taxaw doom yi dañuy dellu loolu yi dafa am lu koy waral su boobaa loolu am na ay ñaan yoo xam moom lañ ci def ngir yàlla mën na mën ko musal ci loolu kon daal lu ñu mën a wax daal si wàllu am doom am nañ si euh, bagage yu bëree bëri yoo xam ne mën nañ ko lépp mën nañ koo faram-fàcce waaye ku si bëgg rek mën nga ñoo contacter ñu defal la si xéwal ndax dañu jaam yàlla yi rek lañ fi nekkal. dëgg la. waaw dëgg la loolu moom dafa bëri léegi si jamono bi trop trop trop trop kenn xamul lu koy waral ñii dañ naan rab moo koy def ñii naan ay jinne la ñii naan ay ndoxu siti la waaye lu mu si mën a doon bépp méttitu yaram boo xam ne ma ngi bàyyeekoo si bopp ba ci tànk lépp rek bu ñëwee mën nañ koo faj loolu ci kisaak amu ci donte koo xam ne mënta dox bu ñëwee mën nañoo def loo xam ne su paree dana dox doxi soxlaam tànk lu métti métti maanaam bu ñu ci tegee suñu loxo bi wax lañu war a wax yàlla na ko may saafara mu dem yoonam. su fekkee koo xam ne mënta déplacé wu mën nañoo ñëw ba ci moom walla ñu jox ko li ñu koy jox su ko jëfandikoo incha allah dootu yëkkati benn métit yaram am na si yoo xam ne dañ la koy jox nga baxal ko boole ay xeer soo ko baxalee sangoo ko incha allahu rabbi bépp métitu yaram bu raa nekk sa yaram bi di la déranger métit boobu dana dañ moo xam métitu bopp la moo xam métitu biir la moo xam métitu tànk la waaye lépp loo xam ne métit la si yaram rek soo ko jëfandikoo dootoo yëkkati métit boobu. mën nañ la ko jox nag ci alxuraan mën naa nekk ci ay ren mën naa nekk loo xam ne da nga koy diw sa yaram waaye nekku ay produit déedéet loolu lépp ci alxuraan la waaye boo ko defee rek tànk yi fekkee day ruux wala muy tàng wala muy métti wala muy newi wala muy sadat yu demee wala biir gi maam di am jafe-jafe soo ko jëfandikoo incha allah da nga sant yàlla bu baax a baax a baax. Hmm. jërëjëf Cheikh Issa. xanaa jëm ñu tëjee ak yow ci coronavirus bi. mbas la moo xam ne yàlla moo ko fi wàccee te yàlla moom bu fi wàccee mbir mënuñ lu du ñaan yàlla rek ñaan yàlla rek moo ko fi mën a jëlee ñaan yàlla ak moytu waaye ñaan yi ñu siy joxe daal mooy. bas ma damay bisimilahi rahmaani rahim 787 waaw ku ko mën na ko def bisimilahi rahmaani rahim 787 su paree nga teg si salaamun qawlan min rabbi rahim nga def ko 111 wala nga def ko 371 te nga ko képp ku ko def daal yàlla mën na laa musal ci mbas ak feebar boo xam ne day wàlle te képp ku koy saxal it yàlla mën na laa defal jàmm mën na laa muccal si ay lor ak ay jafe-jafe loolu daal xam nañ ko si moom ak yeneen yoo xam ne daal xam nañ ko si. waaye loolu daal basmala ba ku ko ci def ak salaamun qawlan min rabbi rahim 371 incha allahu rabbi yàlla dana la musal ci bépp xeetu feebar boo xam ne day wàlle am na si loo xam ne danga nga koy bind maanaam sa xol tànk bi soo ko si bindee incha allah benn feebar maanaam du du la wàll mooy baatu la yas taaxli fannoom la yas taaxli fannoom nga bind ko sa ron tànk bi tànk ndeyjoor bi bépp feebar buy wàll incha allah du la wàll allah. incha allah alhamdulilah waaw ñu ngi sant yàlla bu baax rek di gërëm jaam yàlla yëpp di gërëm ñi nga xam ne ñoom la ñuy jëflante si wàllu ñaan xam ne ñu si bëri suñu xarit lañ ak suñuy soppe lañ ñoo ñuy teral guddi ak bëccëg macha allah ñu ngi leen di sant bu baax di gërëm fu ñu mën a nekk si àdduna bi kenn ku si nekk xam nga su bopp sama soppe yëpp xam nañ ma xam naa leen incha allah ñu ngi leen di ziar di ziar sama gaay yi nga xam ne ñoom lay àndal si liggéey